mais ñoo ngi nekk campagne électorale. Mhm. comme campagne électorale. def condition daal gars yi bokk. Hmm. aussi élection tam nit ñi dañuy bokk. nit ñi dañuy mais élection yoo xamante ni nii sa waay yow yow yow yow rek yow yaay tànn ñan ñooy bokk. wala hmm. yaay taamu ñooy bëri léegi dem nañ sax ba génnee ne mbër yaa ngi nii. <laughs> classe. waaw léegi fu mu nekk mbëri ñooy. benn ñoo éliminé seen biir kenn ay éliminé déglu rek ma ah <laughs> waa léegi rek. waaw dana ku fi recours ma hmm? kay andi recours yi. non c'est que Thierno recours bi moom xam nga nit ñi yàgg nañu koo am na double national Karim Wade kenn du ne du sénégalais. mais Karim Wade am na double nationalité rek loolu moom nit ñi yàgg nañ kaa dégg. waaye nit koo xam ba pare moom am ñu mu singili. kon Amadou Ba. ah. ñi ñu wax ne fii dañoo am ay double nationalité lan lan moo tax euh, sawaay boolewu leen ci lu dul singili ñaar mm-hmm. Cheikh Tidiane Dièye ak kan ak Jomaay Jomaay Jomaay dañ ko waate mm-hmm. parti bi das na na waaw na na na kii na développé na argumenté mais Cheikh Tidiane Dièye lan la mais y droit parce que langue qui fi mu tollu jamono ji ku ci nek nga sa morom. après c'est de bonne guerre. c'est de bonne guerre après c'est à la personne de se je sais pas. di ko wane comme <laughs> Khalifa non non non non non non non non non non non non non non yow bul wax ne non nga ne di nga non rek. non ñi nga dañ <laughs> injustement. yow ah. sama ci non. très bien non non waxul non

tension bu ci gisee tour Ousmane Sonko mom Cheikh Tidiane djeyni day sempi ndëndëm muy la euh, laajax tontu ping pong bu dox ci digënté Amadou Ba ki di Cheikh Tidiane djey weddi na touma elaj Hadj waaw xam nga c'est comme mom man ñu né candidat demal nga recours sa moromu candidat mhm. nga bokku pouvoir comme nga bokku opposition man né suma ma candidat simon Amadou Ba même buma ma nangam ci mom parce que conseil constitutionnel loi bi may na ko ni mu càmbaree nii euh, parrainage yi yeneen huit points yi des yeneen huit dossiers yi des. Mhm. mais cette charge yi dañ koy càmbar. Mhm. man duma la waral dara. yow doo nekk candidat ma nekk candidat man ma juge fi fële ñëw jël sa ab nationalité woo xamante ni nii nangam saanam uy ma ma ne ko lelle ñëw indi ko teg ko ne kii du bokk. xaar ñoom ñooy moom moo bëgg non mais du bokk jooju moom la ñu a jëlee Sénégal yow en tant que yow man. yow candidat sa sa collègue candidat entre guillemets nga jóge fële ñëw ne diw mii damaa bëgg ngeen éliminer ko. du bokk te yow élimination yi ni ci réew mi rek doy sëkk sëkk sëkk sëkk ni ñu ngi def pour ñëpp bokk ñëpp bokk lañu wax une élection inclusive. inclusive libre transparente démocratique du dëgg. mais yow ngay wut ay teen yoo seppi si sa si sa si sa bopp moroomu candidat yow kay bàyyi ko ak ki nga xam ne moom lañ dénk loolu. même bu dee loi bi maye na ka laa la wax Cheikh Tidiane Dièye nag. man ba ma déggee ñuy wax ay affaire double nationalité dama naan loolu moom mbirum état la heureusement ka wax na ko na ko génnee français yi kay barki démb am na am na lu ñu dem dañ cee gis turu Cheikh Tidiane Dièye bi nga xamante ne ñooñu dañoo am euh, euh, nationalité française turam génn na ci. beneen bi mooy Cheikh Tidiane Dièye dafa bokk Pastef waa wala déet kon nan lay bokkee yeewi bu bokkoon Pastef du mën a bokk yeewi xam la conférence des leaders de yewi askan wi ku entité bu nek ben nit mom mo lay mo la fay représenter amna ñaar ñu fa mësa ñew bokk bokk ben ki bëgguma tuddu sen tour mais si biir réunion bi lañ leen waxé ne leen kenn ki na tok kenn ki na genn la conférence des leaders lañ wax leader bi ciundum Ousmane Sonko légui nek leader Pastef Cheikh Diane tam nek leaderu Sénégal bi ñu bëgg ñom ñoy siéssé ñom ñaar nga ne nga ne ñom ñaar ñoo bokk parti hmm Cheikh Tidiane Dièye dafa am carte membre Pastef. weddi na ko moom fii nag gën a jege wante moo fi am moom noonu la jege Ousmane Sow assumé na ko. assume na ko Moussa Tine Moussa Tine conférence la bokk ñoom xam ne dafa jege Khalifa Sall Ahmed Aïdara conférence des leaders ñëpp dafa xam nañ dafa jege Malick Gakou wala mais Cheikh Tidiane Dièye sax parce que moom dafa gën a leer Moussa Tine dafa dem jàppale Khalifa Sall Ahmed Aïdara dem jàppale Malick Gakou mais Cheikh Tidiane Dièye moom dafa ne man candidat la kook kay sax moom moo ñu gën a moom moo ñu moom moom sax moom moom moom moom dossier sax moo war a gën a leer de wala. Mhm. waaye Amadou Ba nag génn ci caaxaan yi mu nekk. alors euh, euh, euh, laata ñuy jàll ci leneen a ah, division bi ñu nemmeeku tey ci biir opposition bi am na quotidien bu ko bu ko bu ko wax est-ce que du nekk lu leen di faagaagal comme niñ ko niñ ko daan nemmeekoo ci yeneen booloo yi ñu daan woote. li leen li leen di néewal doole. néewal doole waaw mën na ee bokk mën na cee bokk mais fii dañuy comprendre ne Ahmed wax na ko yoon yoon moo ko maye. mais yoon moo ko maye looloo tax boo ko jëlee ci image yu nawetaan da dañuy portante réserve mais est-ce que yenn réserve yi jar na ko est-ce que yenn réserve yi tamit sukkandiku na fu dëgër foo xam ne yow mën na tax ba nga écarter sa moromu candidat. Mm-hmm. parce que loolu yëpp jongante bi ci la. parce que li ñu amagum ci liste provisoire yi ça vingt et une personnes xëy na ku ci nekk dangay ngay calculer ne bu nit ñi bëree nii xëy na man du ma am électorat bu bëri donc pour ma jàll dafay xaw a doon problème man calcul bi foofu laa ko jàppee mais lii nii yëpp je pense que opposition bi waroon nañoo mën a am benn genre gentleman agreement seen biir ba nga xam ne xëy na yenn yi du ci mën a am parce que lui également nous na contribuer à affaiblir presque tous les candidats notamment peut-être l'opposition donc il mbir la yu ñu war a moytu mais nag comme euh, porté nañu réserve ci ne sais pas comment expliquer les juges, les bi ci conseil constitutionnel les sept sages ils vont prendre leur décision en fonction de xëy na ñi indi recours lan la ñu teg ci table bi parce que dune rek dugal nga recours que forcément ce recours boobee jugé dañ ciy sukkandiku pour dàq benn candidat déedéet mm-hmm. ñoom dañuy àtte ci li nga xam ne mooy yeneen pièces yi parce que dossier bi du ay mbirum nationalité du ay mbirum condamnation ak yenen am yenen pièce yo xamné xam mi ngi ci bir yo xamné également juróom-ñaari sages ci lañu ñuy sukkandiku on verra bien demain ce que ça va donner parce que demain moy dernier jour bi nga xamné conseil constitutionnel ci la war liste génne listu candidat définitive la liste officielle de tous les candidats mais au plus tard demain té hmm. amana sax mu dem mu teel a ci suba ci wala ci ngone si wala sax peut-être ci goudi gi yalla rek euh, on sait jamais yalla yalla rek xam à hmm. 8h33 euh, Simon rédaction baa ngi lay xaar. waaw mais jërëjëf. nekk ci liggéey bi. waaw ñu yendu jàmm. le grand maire 200. fa la ñuy daje ñu waxtaanee kon tollu waaye mi ci 89 point 7 ànd seen mantulaay ci bundoo yi jeexale ci wàllum diine ba tey ak màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne dafay fàttaliku gane si àdduna Serigne fàllu Mbacke ñaareelu xalif euh, bu euh, Murit dinañ ko jëmmal juróom-ñaari fan ci weeru février bi ñu dëgmal sa Touba. Euh, woote nañu am ndajam wàccaay foofee sa diwaanu jurbel Ibrahima Fall gouverneur bu diwaanu Diourbel jot na caa yëkkati ay ñu teewlu ko Abdoulaye Diagne. nga xam moom la ñu dëgmal mi màggalu Kazu Rajab ci wàllu wër gi yaram liñ ci tënk mooy fukki post ak juróom gën a dooleel également dotation en médicament waxtaan ak ñetti hôpital yi nekk ci Touba ñu mën a def des soins gratuits ci wàllu ndox ñaari forage yi nga xam ne ñoo nekk àll rek muy rahmatul ahad ak Touba Ndiarème ñu fexe ba fii ak màggal gi ñu mën koo mett en service bu bees bu nekk également